salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi léegi daa doon live ak maam Ndiaye Savon ñoom Zal Mbaye ñoom ñépp maam Ndiaye Savon def na geste bu rafet danoo def live bi Zal mbay dugg fa regretté réccu lim doon xasee maam Ndiaye Savon ndax nee na saytaane moo bari woon doole mais maam da koo bëgg lu mu am rek maam Ndiaye Savon la ci barkeem la amee lépp maam Ndiaye deful ko lépp maam yaram bi daw mu yëkkati un million deux cent bee siin ak passeport u Zalmay ne ko dama lay daggal bee nga fekk si ma siin léegi liggéey yow yaay. loolu dëgg la. léegi ni nga justifié wu ci Adamo moo tax man Zalmay maa la daggal billet Sine ah! bu. un million deux cent Sine Saalum. un million deux cent. na jàmm yàgg. allo. maam Zalmay Zalmay billet bu un million deux cent. maam Zalmay million deux cent. pour mu dem Sine. trois dama la dama Adamo Adamo dama leen di trois zéro li ma si Sénégal Gambie la trois zéro. kuy def di réccu kooku ku baax yow Fatou Sarr nag door na leen trois zéro nga ñëw fii dañu rey wax. Adamo Adamo Adamo Adamo Adamo waxal ban jolof mu bàyyi ko match bi lan la ñaan li ñuy ñaan ma maam Ndiaye mooy mu may ñu benn affaire maanaam tontu bi yaa ngi comprendre. ak loolu de la loolu boo ko bàyyee boo ko bàyyee maam Ndiaye waaye maa ko wax la. maam Ndiaye nga boo ko arrêté képp ku la. toog maam Ndiaye ñun loolu rek lañu lay moo tax dañuy dañuy découragé. waaw Adamo yàgg naa ko ma wax s'il te plaît. bilaay ñaan nañ la rek la ma tuuti foofu ci maam léegi sax may ñëwal nga arrêté ñaan naa lu dul dëgg du yàgg. dëgg la de. rul dëgg gudu yag keroog xam nga man ku ne xam na ne moom xam na bambi bi may wax bambi sama jigen la sama xarit bañ na ba naan mbay bambi loolu lañ ma wax ca palaat ba. waaw waaw moonte maam ma wax la ñaari baat yoo dee yoo xamuloon tey jii keroog directé ci bambi lim ma bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëggul lu ma naqari vocal daf vocal vocal bu sens. ba bambi ci boppam daf maa ne zaal nga nit man du dama nit nga xam ne bu ma dara dama ta xam ne li def nii erreur la. nit mooy def erreur mala du def erreur nit doo ngay def erreur. yaa ngi dégg baam bi daf ma fokkaa déglu ma rek baam bi daf ma fokkaa zaal may ma ne ko ah mu ne ma def nga lu ñaaw li nga wax nii wax nga lu ñaaw yow bu ne la génne la preuve ma ban preuve ngay génne daal mbay. dëgg la ñu waxante man moom mu waxante ma xam ne kii li ma wax la keroog ma keroog bi ma sant. maanaam maam bu fekkee man maam Ndiaye Savon sama xarit la man ma am samay nit bu nu ci live daan ne man ah, maam Ndiaye Savon moo tax. ñu tëj ab compte Adamo bu koy sama nit waxee ma xam ne ñii sama nit la ñooy ànd guddeeg bëccëg man am naa grandeur u génn ma ne compte bi dafa war a dem dem mais amul kenn koo xamante ni tëj na sama compte. Mhm. bu ko defee kat ñu ne ah moom kat wax na waxu dëgg loolu lay wax dëgg mais bu ñu ay nitam mhm. waxee moom mu ne ceel rek waa kay moom mu ne ceel rek toog fi mu toog day mel ne kat moom moo wax wax ji pour ñu eggale ko parce que tamit xeexu réseau yi dafa am ñaari façon. fon dooma bàyyi ma fen dëgg la fii nga fi taxaw ne yaa sama compte fii nga fii laa génne sama passeport nga may ma ma daaneel. ñëwal. mbaral ci suuf lay dégaase. gaa yi di ci kaw dëgg la moo gën a katt ndayam ci àdduna léegi nag may ma maman vulgaire bu ko neexee dégaase ci ay xaritam ñu yëg ci kaw live jottali mais moom du wax dara ci suuf lay nekk. waaw ma ne ku muy mën a kon live yi nga def ne bii da ngay taxaw. da ngay doon mhm. naan te nga jëli ko directement réseau yi lay deme waaw maman moo waroon a génn mu ne sama compte dafa war a dem dem mais bu leen ci tudd kenn naan moo ko tëj ndax man kenn tëjul sama compte point. jeex mais nag kaay ma wax la benn affaire de maam buy live booy kaasa sax da ngay da ngay da ngay da da ngay mujjee nuux da ngay toog. ñëpp dañuy dem foofu damay xool ci commentaire dama naan nit ñi da lañuy jënd fii nii. parfois ma romb def ci laay fam yaa tey réew mi nag mais nag baalal nag ñoom ay mama ak ñi ñëpp wax yow da nga yow war a xam ne mooy li soxla si wax sànq. non bote bote bote bi nii Souadou ma rek Souadou même même rek mais waa soxla si même rek sànq bote bi dafa wax lu garaaw Macky Sall mooy président Sénégal déglu ma so déglu ma rek soxna si Macky Sall. dama koy mer maam daa bëri wax bu weesoo loolu amul dara bañ ko ko yab la may ma rek bëri histoire bañ ko la yab bokkul amul dara lu bon lu ñaaw lu la nit mën a waxal fii ci réew mi amul da nga sëy ba sëy jotee am doom fa nga ko war a amee ka ngay sëyal nga doon sëyal man xam naa lépp te sëy ba ah, yow ñi ngay xullool ñii nag bëgguma ci sax di wax ñii tas nag ñii am nañ foy jaar ma xam seen vie téye ko nii mais dama bëgg benn affaire muy direct ma am maanaam benn affaire boo xamante si nii loolu laa bëgg maam ngay doxe bul di gaaral bul bul wax ak nit koo dégg moo wax la dara lu la neexul ci internet bi mu leer ma ne la moo la tooñ moo dugg say 18 nu ta yaa ngi sama whatsapp yónnee ma ko ma seenaan ko tooñ fal ndeyam nga toog fi nga toog te bu yeboo nga moytu Jessica de Jessica daal taxal de maam xaw ma xaw ma maam xaw ma daal ñoom li ñuy def xam nga lan la comme ça ñoom ñuy saaga maman vulgaire léegi dañ dañ lay taxal rek xam nga ne ku siiw nag ku siiw tamit da ngay bëri ay ndënd xamuma ko sax ku dee ak sa baam man xamuma ko ah, di nga non non li nga wax léegi yow yow boo waxee roxee rek yow léegi nii boo waxee roxee rek Adamo Adamo bu leen wax gi nag kii bu léegi ni bu kii kii léegi ni bu waxee boo non non boo waxee roxee ne yéen a bokk Pikine rek da fekk ne da ngaa gore moo tax nga ko loolu noonu non non roqay dama koy gis muy rayante nag man mais léeg-léeg damay gis muy wax léegi te nangootul tudd sama tur te roqay dafa génn gis ngeen di roqay ku dee ak sa yéen nag lay topp waa banlieue bi dia, lay déedéet dëgg lay gis nga dafa am problème bu fi njëkkoon a am mu génn wax Mhm. ma daa génn rafetal. te moonte li mhm. mu wax ak ay dëgg mais damaa génn rafetal du dëgg ndax Pikine lañ dëkk ñu ñëpp ma génn rafetal ndax moo koy dama koy mhm. déglu bu baax ñun deretu Pikine mooy daw suñu yaram ñun dañoo mën a solidarité yaa ngi dégg mais damay gis muy wax léegi day wax mama piling nangul xoolal yow lak yow non non wuy ma yow lak lay topp moom noonu lak lay waxee non non c'est ça maam yaa ngi sa yoon te yoon la tuddee dañ la saaga ñu moom moo tax joor mës werante Dior Dieye mës nañu werante man ak moom mais Dior Dieye ba Dubaï ma bàyyi ma fenn. même Sadir laajal Sadir. Dior yaa ngi may dégg laa wax Dior. waaw damaa bëgg. Mm. maanaam gémmiñ bu waxul dëgg wax fen mm-hmm. boo yii di tooñ ma mama Ndiaye Savon wala di joteeg moom ci internet bi yëpp. ba maam Ndiaye mm. Savon di jóg jóguñu. Mm-hmm. boo ko xamul mënoo seede ci moom. maam Ndiaye mm-hmm. fajar teel la daan jóg di dem marché Zeng. amul ci Ndiaye bu mu duggul. Mame Ndiaye ba saa yu ma ko daan woowee appel danaan ma maa ngi ci marché bi du ma bàyyi ma fen chaque jour mosuma koo woo mu ne ma maa ngi ci kër gi maa ngi ci marché bi. dara xew dafa dëgg nag de na la balle perdue de ba muy mm. jóg di daaba daaba ba yegg fii mu yegg ñoom ñëpp kenn jugul loolu man mën naa koo seere ndax xam naa ci dara moo leen dàqal liggéey fuuf gën nag leen xam ni ni liggéeyee gën leen xam ni ni wutee xaalis leen rek ay problème moom bari uswat, bari toj No, bañ ko lay yapp la bari Babacar bu fekkon dafa top ya ngeen di jaawale nit wax ko dara ci internet bi maam soxlawul muy wax ndax man kuy wax ci internet bi mën naa lekk seen lëfal day ñom ñep adama mais sénégalais bu ngeen di conseil xama la laa bëgg tontu dama ko bayyi won ba yeen ñep xam na ko ba mi wax laa bëgg ñeen sa yeen bi wax man non la lay téré dama dama bayyi tontu yaa ngi dégg gis nga soxna si yow mi nekk ci direct bi gis nga xale yi yëpp ma àndal ku ci am problème dama lay gis parce que tey bari nañu woon group lañ waaye xol bi ma ci amoon yàlla may ko ci kenn ba tax na man su ma amaan ku ci am problème man ngay daw wër si ndax damay partager ak yow sa problème jooy ci ànd ci jël sama aska asaka yéene bi ma yàlla may te donte bariwul woon bokk ko ak yow kon nag nit dangay gore wéet gore wéttaliku gore te ngor dara des ko dugal Adama Adamo Adamo naara dugal naara dugal Adamo man lenn rek laa wax diggante maam ak mama virger, lenn rek laa ciy wax boo déggee ma ne lenn laa wax man mama virger, damaa ñëw fekk ko ci place ba mam Ndiaye mii moo ma xam mama virger, bi ñu man ak mama virger, dafa fekk atelier Pape Sall eh, Vito di jabaram ñu àndandoo ñoom ñëpp ñoom fanta boobu ñoom maam ñëpp fa la ñu ñu ta mama mama virger, moo ma ci place ba waaye man leer na man leer na ler leer yàlla man birna na ma man ku ma tagal kaamil ma waat ko maman Virgère dafa bëgg maam Ndiaye maam Ndiaye dafa bëgg ma Virgère gi nga bu nit ñi génnoon seen diggante rek lépp léegi ñu juboo ñoom ñaar ndax ñaar ñu bëggante rek ñoo war a mën a ànd te xam naa loolu nan ne wax dëgg yàlla dañoo bëggante xam naa loolu Sénégalais ñoo dul bàyyi nit ñi yàgg nan de maman Virgère da doon jooy ndax maam ndax maam ndax maam Ndiaye yaa ngi dégg da doon jooy ndax maam Ndiaye maam Ndiaye dafa bëgg mama birger dañoo bëggante da ànduñu tey mama birger keroog ba mu jugee keroog ba mu jugee ca ca ca Kër Massar ñoo fekk maam Ndiaye mu nekk décembre mu fekk maam Ndiaye atelier mama birger Birguer dañoo lëngante ñoom ñaar maam Ndiaye na ko ñëwal ci place bi nga fii liggéeyee kenn ëppalewu la fi loolu maa ngi ko fekkee kenn nettaliwu ma ko yaa ngi dégg maam maman Birguer di jugee Kër Massar di xëy si place ba mu neex ñu bokk mu naqadi ñu bokk gis nga ba ñag làmmeñ ñëw dëkk laale man ta ñàkk waaye ñun ñëpp bëggante ñun ñoo ñun ñuy jote ñëpp bëggante yàlla xam na ko bu nit ñi Afrika yow yàgg nga ci kaw wàccal bu nit ñi génnee suñu nopp yi yàlla xam na ne ñun ñëpp ñu àndaat man de lenn rek laay regretté wax dëgg fa yàlla man du question li ñu ma dara de ma man ma maam xam na sama xol man xam na ne man mi maa ëpp xër xar waaye aw ma xol te man mën naa sama nawle lu ne wax dëgg fa yàlla xam nga lan mooy problème man moom loolu léegi léegi Zal laa bëgg mhm. léegi maam Ndiaye savon ay savon lay jaay mhm. kële ay géej lay gaay ay yoxos ak i ak kii ak i yët léegi loolu lan la maanaam nan man ban lam a ah, lan la savon jote ki yët ak i géej ku nekk man ngaa am la ngay am te doo tooñ sa morom dëgg la ku ne mën ngaa jël sa wërsëg te doo tàndaas sa morom Mm-hmm. léegi daal mbay xam nga lan laa xam. xam ne géej ak sama bopp Ndiaye Savon may na Zal Mbay. bee waa léegi dégg xam nga lan laa laa bëgg Adamo xam nga la laa bëgg. waaw comme moom amul palaas. te nawle mi mu fekk la woon ñëpp am nañu palace te sama mag bu jigéen lii la ma woo wax ma ko ne ma Zale Mbaye mii comme nekk naa ak yow te àdduna bépp xam na ne laa bëgg erreur amoon na seen diggante. léegi place laa bëgg moom moom la bëgg wala dafa bëgg a ubbi bëggitu siin bu fekkee place ko gënal ma euh, envoyé ko léegi ci direct bi un million mu xëyee dem wuti place am bu dee paasu siin ko gënal ma jëndal ko billet moom mooy seet. Zale Mbaye choisiral <laughs> ah. léegi léegi un million léegi. léegi waaye tàmbatale ne grand bi mais léegi nag ku mel nii ngeen ne yéen da ngeen a bëgg a xeex ak moom lii c'est difficile bi ngi mel na nga jàkk ci eh, am am ñu a nekk. léegi Sall Mbaye. ah ah waaw ah. yow yaa gis dara léegi nga bëgg ma ne jëlal leen ba lii laa wax Sidi nga a dem. lii maa ko fekke maam xam nga man am waxkat lu mu fekke day siiw man kenn du ma nettali.

baax na wax dëgg fa du ma la wax lii du ma la wax parce que Sine boo koy dem da ngaa a am place léegi yow maa ngi lay envoyé un million Zal Mbaye wuyu ma uh-huh. nan waxante dëgg mais amoo place amoo dara ñu yebal la Sine sa Sine waaya nga jël say conteneur indi mais foo leen di dugal bagages yi xanaa doo ko sa kër geeg sa néeg bi dama ne maam Ndiaye yónnee ko xaalis bi xaaral ma génn direct bi envoyé ko un million xaaral ma génn direct bi envoyé ko un million. waaye yow Saal Faye. <laughs> waaw Saal lii maa jàpp la. c'est <laughs> que nag moo yow réew mi de fépp lu ne de sama papa ji. <laughs> dàgg ma loolu un mois nga koy liggéey ji nekk Europe xam nañ ko. un mois ngay liggéey un million. allo yaay. waa artiste ko artiste ko allo xaaral un million barki rasulullah waay live bi neex na waay <laughs> léegi nag nan waxante dëgg nag mais maam Ndiaye Savon bii neexut a xeexal ah neexut a xeexal de barki sëñ Babacar Si yow kii aca léegi ah maam euh, maam Ndiaye Adama sooda ngay jël sooda Samb waaw miñoon may ma miñoon loo bëgg a wax yow mi def photo maman vulgaire bi. xaaral ma wax gaaw rek wàcc gaaw. ah miñoon. miñoon de xanaa. miñoon loo bëgg a wax. wàccal ci suuf. waaye ñii foo ko fonte la ci suuf. <laughs> ay ay ay ay baax na léegi léegi yow ah, Adamo nuyu naa la yaa ngi si jàmm. waaw gëj naa naa la dégg temps yi da nga maa bàyyi quoi nu mu demee noonu. nee naa la Ousmane Sonko rek yow. waaw <laughs> ah, mais baax na yàlla baax na yàlla na yàlla suñu borom def jàmm ah. Euh, maam Ndiaye Savon maam yaa ngi may dégg. maa lay dégg Fernand jëlal jëlal jëlal Zal Mbaye maam. maam maam maam li nga def li nga def rafet na. léegi nag euh, loolu laa bëgg nag ngeen dugg seede ko. waaw a ma wax bëgguma ko dugg fii nag naan dugg na fii ak génn na Fernando yow xamante ne ñi si suuf laa. ah waaw kay da jël ah. wax ay bal ku fi wax ay bal dinaa kat. Mhm, Léopard merci. Léopard merci maam maam maam maam maam gàcce ngàllaama yow vraiment defati nga mbir man démb rek maa ngi la bëggoon a woo téléphone ba tey jii rek maa ngi la bëggoon a woo dem na bay tappe sa numéro pour woola la après ma amaat leneen lu ma doon def occupé. moo tax Mansour Balde gi yow it da maam Ndiaye li li li li nga def ni dafa rafet li nga def rek jël xaban ak euh, keneen ki nga jël leen yóbbu leen ànd ak ñoom wan leen yoon bi ñuy liggéeyee loolu rek dafa nekk lu rëy loo xam ne képp ku nekk Sénégal doon am na ay millionnaire yoo xam ne ay commerçant lañ mosuñoo def loolu ak seen employé dañuy dem rek di ñëw rek di jox seen employé seen employé wax dëgg yàlla kuy jaay yéen moom comprendre nga te li nga def noonu dafa rëy. lii rek war na war na wane exemple xale yu bari roy ci yow. tey kay maman Fournier lay sànni ay bal yu baax. léegi leneen li ma ciy dolli mooy Zal Mbaye mii Zal Zal mii nga jël jox ko un million yi vraiment lii rafet na mais man bu sama man man man man bu doon sama. sago maa la léegi nga daggaat maa la jël léegi léegi nga coupé. Adamo doo may ma yeggale bu doon sama sago maam. maa la jël waa baax na waaw. borom géej yi bàyyi leen ci géej yi ak yéen yeeg <laughs> yow. waaw yow nga yem ci li nga xamante si nii moom ngay moom ngay def muy sa savon yeeg sa marchandise yi ngay jaay kee yer ci slip bi ak ak amee coow du am slip ak caleçon géej yi Adamo dara lii laa bëgg Adamo daal li mu bëgg a dégg mooy Mame Ndiaye savon réew mi xam na la loolu rek nga bëgg di dégg tey Mame Ndiaye savon ma ne Mame Ndiaye savon nag ba ko réew mi xamee du tey danga naan Sénégal a koy doog a xam dafa erkaate ngay ay tànkam wax lu saf Adamo jëloo sooda Samb Sooda Samb ku a bëgg Maam Ndiaye Savon waaye Maam Ndiaye Savon rek nga bëgg nag moom lay nooyee dafa bëgg Maam Ndiaye yow dafa ndànk Mansour Balde bi mu wax kay ngi nii Mansour Balde waa Adamo bisimilah yow fu ne jàng fa ak bëgg nag uh, nga kii ci kaw ngeen déglu ma vite fait tubaab koy bàyyi mu ànd ak ka mu maam Ndiaye dafa yaa ngi dégg bëgg na ànd ak ñëpp nañ ko bàyyi mu ànd fii réew mi kenn du tere kenn ne kii kii la war a ànd fii ku ci nekk am nga droit ànd ak ku la neex bu kenn tànnal ne man kenn du ma sàkkal ku may àndal man ci samay jigéen muy Fanta Mbuub di Mama Vilgué di Maam Ndiaye Savon di Ndeya but kenn du ma sàkkal ku may àndal wala kenn du ma sàkkal ne lii laa war a defal la laa comme ñoom ñëpp ay jigéen ñu baax la ñu am jom ne Adamo boo xalaatee groupe bi démb na mu meloon ak fi mu egsi tey nga war a xam ne ay ay bañkat ñoo ñoo fa nekkoon ay jàmbaar ñoo fa nekkoon imagine maam bu njëkk Adamo deux mille deux mille moo ko doon dajale ñeenti téeméer moo ko doon dajale otees yi moo ko doon dajale maa ko doon ñëw kon su ñëwee ba jonn yàlla tey jii bu jiitee kon na xam ne yàlla da koo fay rek la mu doon def ki fii ku ci nekk yàlla sa xol la lay fay man nag wax dëgg fa ne yàlla si ñoom ñëpp ànduma ci kenn daa dama ànd ak ñoom ñëpp te yàlla rek tax parce que man nag tubaarkàlla wax dëgg fa neex yàlla ak kum ci mën a doon lu ci waay am rek mérito nga ko l'imam maam defaral Zale Mbaye Zale Mbaye mérito barke sayidina Muhammad ndax wax deug fa neex yàlla kuko beug la. te ku xam cëram heure mun ta ñaar li ci des nak yàlla moy motal yàlla na yàlla motal te rafetalaat jikkooy te nit ñi nañu baye nit ñi ñu ànd bind kat yi capture kat yi lu fu wax yegg rek ñom la fu wax egg rek ñom la. yal nañ yalla musal nak ci hypocrite yal nañ yalla musal ci nit koy sos yal nañ yalla bindal ci nit kuy yéeg yal nañ yalla bindal ci nit koy yok maam en tout cas fi nga tek sa loxo bu ko teggi ben yon lu bax nga def te lu bax kenn du ko def diko reut wax deug kon defal demande jox nga ko nag koo jox machallah allah ngi len di baye nak Adamo man ma ngi setan ci souf ñeneen jere jef Mansour Balde sa kaddu yi rafetlu Adamo waaw may ma ma ay saku la wax loo doo tëj ba ma bare jaay di làng di wax lu leen saf naan borom diw yaa ngi nii yëg kay jaayee nga nangam fu ne ngeen jaar faak maam mu jéeg moom foofu tey bu ngeen duggaatee naan maam dafa baax maam day kii nit ñi maam fee la nekk moom daal maam daal nag doful daal xam na moom tamit ay nitam yow daal jërëjëf rek lan la mën a wax maam tamit di la wax jërëjëf du dëgg maam asamo ah, <laughs> jërëjëf rek yàlla baax na. yaakaar doy waar. Adama boo cagal la fu mu doyoo tubañ jëm mu naan koy xaar. kon réew mi. mu dogul tubay rek ngeen balaan koy xaar. di nga yéex a dem fii de. ma ne ko dina yéex a dem sa meesin bi la dugg rek yéeg di wax lu baax. yow maam maam maam ki nga envoyé xaalis man xam naa ko am naa numéro. moom ah. la mooy mooy kii la kii laa ko envoyé bambi bambi miy liggéeyee ci zal la moom bu xëyee dina ko transféré moom amul problème boobu fu mi ngi lay envoyé léegi cent mille ci compte ba sa compte. jaara loolu jëru bu ko wax ci vidéo bi. yow eh. wey maa lay lu tax yow nga jongo ma bañ laa defaree woon démb. barki raye eh. <laughs> moom Mame Ndiaye ku la laal ci bakkat ndeyam. yow dul kan nga <laughs> ah, ah, dara saf la suba mën ngaa koy saaga waaye ana photo bi te Zale Mbaye da ngaa summeeku woon de. Zale da nga summeeku woon de. Zale Mbaye nag bu fi wane sa kii. sànq ba léegi nii laa def sànq ba léegi nii laa def. Zale Mbaye lii du sa numéro Zale lii du sa numéro. li la la waa Kambal non non écran bi ngay tourné sinon ñoom duñ ko gis maanaam yow bul wane sa bopp écran bi ngay teg ci beneen téléphone. waxal numéro bi Kambal waxal numéro bi. 78. numéro baa ngi nii kay capture bi lañ la bëgg a envoyé mi ngi nii. 521 bi. wala nga yónnee ko mu ne ko daj ci garab yow xaa baa nit nga. ay yow kii maa juum ci wéb bi. daa juum man maa am 521 maa 521. yaa illa Allah man maa am ñaari numéro ak sama ñaari numéro 521. ilaha illa Allah Allah ji leen 521. gaw leen woote. Bakar ba ko teeto ko nga 521. wuy sama yow yëpp wàcc na heure bi. neuf cent mille kooku de du ko hmm. joxe. laa illallah ay waay xambaat yaa dof. Eh, Zalmay tey jii Zalmay eh, Zalmay Zalmay numéro bi numéro bi mu ko envoyé moom ngay jël nga woo waa Wave ne daa am ku ma doon envoyé saa am tey de ngeen dee de. Wave heure bi wàcc waaw heure bi doole jot mais wool ba lépp numéro bi ko envoyé yow da ngaa def foofu su ma yëgoon xaar suuf ba mu ñëw. ne am capturé numéro euh, kii baa dem envoyé keneen moom wérul moom xam na sama numéro moom xaar ba am na sama numéro lu tee mu génne ko ci téléphone am. laay non non et eh, bu ko joxe fii de boo ko joxee fii dañ naan dañ koy keneen da koy woo ne ko maa moom xaalis bi. da ngay jël numéro bi nga jox ko Zalmay. léegi envoyé envoyé Zalmay euh, numéro bi moom bu fekkee woo waa Wave. Zalmay essayé woo waa Wave. nee leen daa am ku ma lu muy demee ba sama dal xam nga nan ngay def. waaw da ngay jël bi nga woo borom bi léegi léegi ne ko damaa. ndax mën nga koo dugalaatal léegi. léegi wool borom numéro bi. waaw kay numéro ah, bi waaw léegi da koy woo appel normal nga xool ndax am na WhatsApp enregistré ko su la neexee nga ne ko su ko Adama laa ko doon dugalal mais damaa juum mu yegg si yow. saal bu. bala non saal ma. Adama kii kay wér bu ko delloo da nga koy taf Adama. naan ko Adama laa ko doon laa rek. ah kii saal laa ko envoyé kii wal enregistré numéro bi sa téléphone. non mais xam nga yow da ngaa ëppal trop. jëlal numéro bii nga def ko. nga enregistré ko na ko. non cat moo gaaw de man de man de man xam naa dafa ñu fi ñaan ci commentaire beneen numéro bi lan la seen beneen numéro bi lan la. wuy ma. Euh, mama kii yow maam wéew bi wéewu Sénégal. yónnee wala numéro numéro Chine. bu zaal ba zaal ba ay beneen numéro bu dee beneen numéro ay Chine yooyu dafa mel ni mën nga ko andi. déglu leen leen. déglu zaal beneen numéro bi daa mel ni moom lañ ko dugal. xoolal sa beneen numéro bi ci lañ ko dugal moo ngi nii zaal bu zaal bu baax. non non du boobu. non non du moom ndaama ko dafa juum envoyé na ma capture bi du moom. waa léegi enregistré envoyé na ma capture bi léegi doo leen woo borom numéro bi gaaw. wool ma borom numéro bi gaaw enregistré ko nga wool léegi taxaw leen live fan direct laa ko ndax réew mi dañoo garaaw dañ naan da koo war a jox un million daa envoyé ko dama kaa bëgg a lijjanti ci kaw laay ba mu leer jox ko ko ana yow yónnee ma capture yow bàyyi kii Sall Mbaye sama wot sama bari envoyé ko Adama Adama boo woowee lépp gën a dugal xaalis yow yow non non yow woo ko ne Adama laa ko doon yónnee rek wax ko Adama laa ko doon yónnee damaa juum léegi mu dugal ko maa la ko wax soo ko nee Adama laa ko doon yónnee léegi mu dugal ko toog léegi ko WhatsApp non dugalal ba kii muy yéen neuf cent yéen neuf cent ak Sénégal ni mu mel wool ma ko WhatsApp waaw woo ko WhatsApp Pape Sall ngi ree ba mais mais ah. numéro bi dañ koy identifier numéro bi am na tur am na lépp kii ñemewut a lekk sa xaalis. non non kii kiñ ko dugalal xam naa ko kiñ ko dugalal xam naa ko kii du ko jël xam naa ko. xam naa ko xam naa ko xam naa yow déglu rek Sall Mbaye déglu nga tëj sa micro bi ma wax ak kii. ne ko Adama laa ko doon dugalal rek. <coughs> Zalmay bu dee am nga crédit nga woo ko nga ne ko maam nee na nga connecté wu dala ne nee ko. connecté wu nee ko mu connecté wu. woo ci xam naa ko bambi Zalmay woo ko appel normal. woo ko appel normal nee ko mu connecté wu. waaw nga ne ko connecté wu WhatsApp nee ko Adama moo la soxla. waaw. non non bambi bu Zal la waaw nee ko Zal bi pose centre commercial la. bambi boobu moom nga. dugal xaalis xam naa ko bul de wax wuy ma bul de wax wuy ma kii nu mu tudd bul de wax ay turam ndax ñeneen ñi dañ koy woo naan ko maa dugal xaalis bi. waaw bul di def loolu kenn du ko def. Mm-hmm. woo ko appel normal xool ndax dina dem. waaw woo ko ma dugal ci xaalis bi kiima ma dugal ci xaalis bi xam nga ni wérut wérut bu ma koy kiyee hmm. ba ñu waali sekk yi jonga ma rafet. un million laa fay. xam nga ne maam bu njëkk ba ak maam bii wutee de. ba may toog ci lal ba di lekk suuf léegi wute na de. Eh, léegi <laughs> maam jaa ngi ci leneen. di la ay Adama Adama yónnee ma Adama nag defal naa météo bi. waaw maa ngi li jënd. <laughs> Adama ba nga jàppee sa jiili nag di ko xas daan ko. waaw saytu bi nga doon. lii la lii lay wane gis nga àdduna. àdduna loolu liggéeyul. ko daan toog nga xam ne nii soob bi ngay teg di teg te baxit mën ngaa taxaw ci live may un million moo tax yàllaa fi ne yéen la gars yi dañ ànd ak yàlla te doylu yàllaa fi de de suun bi laa daan lekk guddeeg sama doom yi réew a réew a lu ba togg ju de bëgg ko ju ko ba naan Adamo tey te yàlla sunu bopp yàlla mën na lu de. ganaar laa bëgg a togg tey. dégg nga. waaw baax na. Mbazal de dof la. kii Zal Mbaye Adamo Zal Mbaye bu demee tukki tamit te amul place moog zéro yam. non baaxul baaxul jox wax nga dëgg baaxul. baaxul moo gën. waaw moo gën bu dem ubbi ji place am toog ci riic. dëgg la loolu baaxul toog ci daxaar yàlla ndax mën naa am lu nekk ndax xolam dafa rafet ku dee ak sa bàmmeel. te moom du fàtte démb maa ngi moom a yem nag am na xët-xët mais du fàtte démb ku dee ak sa bàmmeel Zal Mbaye. Zal Mbaye gis nga. bi ñu jotee man affaire bi ne la ku man man Adamo jëlal say employé nga paasal leen yóbbu leen Dubaï benn ñaar keneen ku man duggal ci live nga maye nga 1 million pour nit mën ubi ubbi place wax ji daal jëru muy xana ko leere moma baye ak sama waji xaba eh mais xaba da ngeen a yàgg nag yéen xabaan da nga xam kañ la mais mais yow ak xabaan da nga xam yow yow xanaa xamoo yow du du jaay bi de du jaay do ci place bi de groupe bi taxoon di groupe bi te am ci xam dara billaay ndaysan legui lolu boko de wax ci ci ci wa live bi du ko comprendre mais man mom xamna lolu duñu xam duñu xam de billaay duñu xam ndaysan ki de déconnecté te ki de num tuddati sax Zal mbay de ma nga lijjanti ji neuf cent mille. géwél bu toog. bu ko reeree sànni nga bay ko 1 million. gal gal géwél bu tok nga xam bu reeree sànni la jënd wala xasu may ga. wala koy koy koy xar. nga laal ko deux cent mille ci live bu déglu live bu ñu waxaat. waay. ah dañ waxante ne. waaye Adama Mam ah. def na loo mën na tey def na yow loo mën sama papa ji. choisir ndax siin nga bëgg a dem léegi wala place nga bëgg ndax amagoo place ma yénnee la xaalis bi léegi déglu leen ma bu baax man maa xool sama gis-gisu bopp daal di xam ne Mam Ndiaye Savon bu yóbboo Zal Mbaye siin te Sall mbay amagul place bu amee ay bagage tu am fu mu ko dugal kuy jaayi caleçon ak caleçon ni mu mel ak i ak taat ni mu yaatoo ak ni mu xatee ak ni mu reyee slip bu ne war nga ko am ay caleçon xajul ci kër ma ne ko yónnee ko xaalis bi mu dem ubbi place mu am ko mu ne da koy may ci live bi un million te léegi la koy dugal jàppale Sall Mbaye xabaan dof bi nag la jox téléphone bi xabaan dof bi la ko jox ne ko dugal ko neuf cent mille maa koy dugalal 100 mille legi xam ngeen nu xaban def jël numéro benen zal juum yónnee fa xaalis ba mais 900 cent mom demna mu war ka dugalal 100 mille muy 1 million may nako 1 million dal legi keneen kim ko dugalal xam nañ numéro bi nee ndax xaban mo def juum dinañ ko wo suba mu récupérer xaalis bi jox ko zal bay mam Ndiaye Savon may nako 1 million ci live bi ba legi am ñu dugg ne ko est-ce que mënoo jël zaal mbay muy liggéeyaat mu ko dedet zal bay dafa am fatou bay yaayam yakar ko papam yaakaar ko jaar na ci man li mu war a def yépp def na ko mais dafa am famille te kuy liggéey ci société ñaan nga yàlla avancé ba raw borom société bi wala am loo xam ne nii amu ko wurtal la ngaa ci man ba dee léegi nag may nit gën jàngal ko nu nuy nappee moo ko gën moo tax mu yëkkati un million jox ko Zal Mbaye tey ci live bi pour mu liggéey teral ay waajuram teral ay mbokkam maam yemul foofu de ñi bëgg maam Ndiaye Savon yépp maam dajale na somu cinq millions pour may leen ko ñu séddoo ko seen biir am ci luñ jàpp kon nit ku baax la jaaykatu géej yeeg yéet yeeg bëru gejj yeeg koŋ yi ku mën defal ne maam jaay lenn tax ma mere woon ko yéen Sénégal yi doon laajte maam sama xarit la nee daa leen maam moo ma yar mama laa ko doon wax parce que ñoo defandoo lépp man ak moom li tax ma mare woon ko mooy dama koo fokkaala ne ko maam bàyyil wax jéeg werante beeg wax ju ñaaw ji ku la tooñ yónnee ma ko ma réglé ko te bul tontooti nit dangay ñàkkat sa bopp fay na ndax yaa leen raw ba mu ma ne ma c'est bon mais damay gis suba gu jot mu defaat leneen defaan leneen defaat leneen looloo ma neexul woon ci moom ndax ñi muy tontu duñ seen morom moo taxoon ma mere ko mais tey juboo nanu ku def coalisation di ko xeex damay toj sa cottu ndey ak ku mën a doon coalisation bu mën a doon nag danaa xar sa data ndey parce que buy far di am man ci maam Ndiaye Savon laa war a far ndax moom laa xam mais lii ñu joteel woon mais léegi juboo nanu maam Ndiaye Savon def lan lu rëy Zal Mbaye tey ci live wasalaam commenté leen ci leen saf